Elhadj Ousseynou Ndiaye dal leen ak jàmm jamono ji mook ñi nga xam ne moom la ñu àndaloon nañ Le Soleil dëggal xibaar bi di ñu xamal di yéenekaay di ñu xamale bàyyi nañ ko waaye démb kay bàyyi gu xumb la ñu bàyyi ki nga xam ne nag moo di Khalifa kay askanu Sénégal bi nga xam ne yëg nañ xibaar bii nga xam ne daal mooy Khalifa Ababacar Sall wa daal di fàq defam riiraan ngir fekk ki nga xam ne nag moo di Khalifa Ababacar Sall démb kay ay waxtu yu bari kay la def ci yoon wi ñu bari ñoo xam ne ñoo ko doon teer nit ñi kay bari nañu lool waaye ba ñoo di way takk dere a ngir Khalifa Babacar Sall a moom kay ay jafe-jafe yu métti la doon jànkonteel ca jamono jooje yéen kay jamono di ñu xamal ne kàddu yi nga xam ne kay jëruñ yi nga xam ne moom la ñu dénk loo xam ne wàllu kaaraange réew yéen kaay bi di xamal ne moom kay dafay xam ne naa ah Khalifa Babacar Sall Sall mi moo sàkku lépp loo xam ne nag ah, sàkk ko loolee ah, loo xam ne na ko Vox ne ci wàllu jéggal moo ko sàkk koy sàkku ko ki xam ne moo di maître Khassimou Touré di xam le ne kay man kay jamono ji ki xam ne moo di Khalifa Ababacar Sall waa wax ji na leer man mii maa ko sàkku laa wax man dox ci wax ci ba mu sotti te bu ñu kenn fàtt nag wal fajiri yéen i kaay xamal ne ak lu man di xew daal am na loo xam ne kenn waxee si ko ci mbirum Khalifa Babacar Sall mii nga xam ne daal moom la ñu bàyyi ngir mu mën caa bokk wala sax mu mën a voté yéen i bi di xamal ne ak lu man di xew daal mbirum Khalifa Babacar Sall moomee am na ci loo xam ne am na ci loo xam ne daal dese leer waaye nag ak lu mën di xew Khalifa Babacar Sall bala moo mën a jotaat dañoo egg ci 2022 2022 rek 2022 rek waaye jamono ji déedéet kay vox populi li ñu waaye tamit Serigne Djili Mbacké kay ubbi na bunt daan nañ koy bàyyi yéene kaay bi ay at xibaar Amadou Sall du doomu njiitu réew mi Macky Sall jamono ji yéene kaay bi dañu xamale kay moom Amadou Sall kay jamono ji takk na soxna fi nga xam ne nag moo di Kees waaw waaye nag fa mu ko takkee moom Amadou Sall da takk ci loo xam ne daal maanaam daal takk ga daal amuta xumbel ka mu takk nag mooy ay Aydara l'observateur ñu daaneele ko mbir mi nga xam ne moo xew ca Tambacounda di mbir mu doy waar kaawteef déglu leen mbokk yi déglu leen lu doy waar ca Tambacounda yéene kaay bi di ñu xamale benn waay daal la soxnaam doon ñaan baat waaje jam ko paaka mu dee e eh, astuma ngoog ba suba Elhadji Ousseynou Ndiaye